nañ jël ca Mauritanie xool yi dërëm ah, ataay bëgguma ko ndal mu gaaw yow ko bëgg ñi ramtal waa TPS 100000 waa ah, dërëm Mauritanie nu ñuy tëjee ma naan waa. <laughs> kàddu ngay mottali ci seen i kàddu. xanaa di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def. gërëm tamit suñu président Maïssa Waly Dione vraiment initiative bu mu jël dafa rafet trop ànd ko tamit wax dëgg fa yàlla ak euh, doomu dëkk bi ndax buñ ne Sénégal ne Mauritanie ñaari dëkk la mais ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Euh, beneen bi may def nag président Maïssa Waly Dione dafa indi initiative bu am solo loo xam ne mosuñu ko woon a xalaat mosul am si diaspora bi euh, ci yu bëree bëree bëri. en tout cas daal ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di rafetlu tamit di sunu soppe nga yow macha allah ñaan yàlla na yàlla rataxal diggante bi euh, ba mu mel ne lam incha allah jërëjëf. Aba mamee ngi nii moo daaneel dërëm toj na fi. Aba Aba namu naa la de si loo nekk ba yaa si jàmm fii mooy Mauritanie de neex na bare na ah kenn nelawul moom bu subaa nga génn nu TFM nag wax bu subaa mu génn nu TFM waa. <laughs> ma yëngalam mbur ma yëngal may sa jox ma feu vert ma yëng waay eh ma yëngalam du ma yar ne leen dërëm yëngalal ba mu yëngu may ne leen dërëm yëngalal ba mu yëngu loxoy eh ma yëngalam du ma yëngal eh ma yëngalam du ma yëngal ma yëngalam du ma yëngal tey ma yëngal ma rotani tey ma yëngal yëngalam du ma yëngal ay yëngalal ba mu yëngu nee ma yëngalam du ma yëngal ay yëngalal ba mu yëngu leen dërëm yëngalam ba mu yëngu ay yëngalal ba mu yëngu may sa waal ma yëngal ay yëngalal ba mu yëngu waa Sénégal ma yëngal ay yëngalal ba mu yëngu ee Mauritanie ma yëngal ay yëngalal ba mu yëngu Ameth Dieng TV damay yëngal ay yëngalal ba mu yëngu Ibou man damay yëngal ay yëngalal ba mu yëngu waay tàccu leen mën a neex nak sabar nak for na yàq doomi nak for na yàq waaye seen doole la gaynde war a ana may sa waali yow da lay woo entre naar ak sénégalais pour ngeen def seen crédit mutuel bi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant misallam aleykum tuuma kaamilin نحن معدلون الشباب بين السنغال وموريتانيا بسنغال وموريتانيا ما قد حد يفاصلنا بعد منا في شيء متشدين الكوار ولادنا ودكوار بواتنا بيوان نحن فر واحد ايوه نحن داع الشباب بين السنغال وموريتانيا نختاروا روايه واحده لذلك طالبين منكم فر روايه بين الشباب موريتاني والسنغاليين nuyoo ak Aba wax ko ndax yéen a ngi si jàmm waa Mauritanie. مرحبا بك أبا نوينا وني بيك مرحبا سلمت عليك حتى نواكشتنا درفا تي اف ام نو ستريس كوكو لولا وانا مامي نيلت ميسالة أخبك زكم e waay may sala e eh, may sa yëngalal ba mu yëngu Sénégal ñu yëngalal ba mu yëngu yëngal na Moratani ñu yëngalam ba mu yëngu may sa yëngal na ba mu yëngu waay tàccu leen mënu neex nara ndax na tal tali eh, may sa yëngal Moratani taxew taxew a xew mas kenn du fi nelaw da ngeen nelaw yeewu leen boog may saa ngi liggéey Moratani e eh, xanaa neex hey eh, da ngeen di nelaw yeewu leen bokk ay eh, may sa yëngal réew mi e xanaa neex nga di ma léegi na daam ay daw ah dama jaay say sama lal waaw neex na na walaay. wan ni ndaa biig. dara wan ni biig namm naa la si loo nekk yow Aba fii tey Mauritanie dina door paax tey ñëpp dina laal li jërëjëf kii. ayca ayca. dégg nga dégg nga dégg nga dégg waaw waaw. nuyu naa la waaw laaj si jàmm. lan moo info bi macha allah. macha allah dinaa la ko jox eh, dinaa la ko jox ñoo far incha allah waxal Aba maa ngi eh, vous êtes les bienvenus à Nouakchott. c'est votre deuxième pays. Et, vous voyez que entre le Sénégal et le Mauritanien, c'est la même chose. Donc euh, soyez les bienvenus chez vous. Et, et je vous souhaite de, ces deux jours à Nouakchott. Et voilà, merci. déedéet Wilson a ko wax déedéet jamais waaw waaw ke waaw kaay kee déet kenn du fi nelaw sama lambar lambar eh. sama lambar lambar